nuyu naa leen nëgën ni tey nëgën ni àjjuma bii euh, ñu weesu ni ki tey ci lañ doon wax mbir yi SONES ak euh, usine bi nga xam ni dañu ne dañuy dindi xorom ci si mbeex mi ngir nit mën ko naan fii si xëng ñu gën ko xam ci euh, Mamel ah ginnaaw dañu warloog yéen leeral ak indi leen dëgg amal nañ si ay gëstu ndax boobu ba nëgën ah ñu ngi xaar. ñu indi ko ni ni mu waree waaye bon ba ba tey waa SONES ak ñu ngi ko séqal muy waa JICA ñu ngi au gauche droite euh, ngir convaincre ay nit yoo xamante ne ñu ngi siy wax mais li ëpp solo te moo ñu yitteel tey mooy ñu ñëw expliquer sénégalais yi li nga xamante ne moom moo am ci projet boobu. loolu nag moo waral ñu gëstul leen en attendant ñoom ñuy décider pour ñëw wax ak yéen ci projet boobu nga xamante ne tey na xel bi ñu gëstoo génne nañu juróom ñaari ponk yoo xam ne moom la ñu bëgg a tënkal nëgë ni tey. fileeg ñu si am leneen lu gën a leer ponk bu njëkk bi mooy usine boobu di usine de dessalement ñu war a dindi mbeex mi xorom si si mbeex mi pour nit ñi mën ko naan du loo xamante ne nii lu jàmp la fii ci biir réewum Sénégal rawatina ba si ay xibaar yu wér technologie bi technologie la boo xamante ni cher na te boo moytuwulee fileeg juróomi at dana asbin fileeg juróom bi at dootul méngoo ak jamono kon ay koppar yu nax saay lay doon leneen li beneen ponk bi ñaareel bi mooy projet bu ni toll bi ñu koy amal amaluñu étude de courantologie maanaam géej dafa am ginnax courant bi na muy demee ak na muy dikkee ginnaaw dañu ne dañuy rejeter xorom bi euh, juróomi kilomètre ci biir géej gi juróomi kilomètre ak courant bi bu ñu deful euh, euh, seen gëstu boobu di courant bi na muy doxee mënuñoo xam anam yi nga xam ni noonu lay dellusee te bu dellusee du xorom lay gox goxiwaat waaye dafay gox goxiwaale également ay produits chimiques Euh, kon mu bir ne lañ si waxoon ci ak yàq ci gàncax gi loo xamante ne nii lu firndewu la leneen li mooy réew réewum Sénégal ndakaaru amul problème mu ndox loolu biir na ndax ci chiffres yi gis nañu ne booy xool euh, réewu réewu Sahel yi euh, ci bokk na ci Sénégal réew bi gën a raar amul tollu ci xayma ci quatre cent mille millions de mètres cubes d'eau kon foog naa ni maraguñu te casier yi casier do yi bari na ci réew mi bi ñu gën a jege mooy bu Sébikotane kon au lieu ñuy def euh, lu jëm ci wàllu euh, dessalement transfert euh, système de transfert moo doon gën a yell te moo gën a oyof ci wàllu njëkk loolu moo tax ñu bari comprendre ñu jam jàmp gi ñuy bëgg a jàmpal projet boobu leneen li nga xamante ni moom lañ ci bëgg a ci beneen ponk bi mooy ndakaaru bés bu jot ñu ngi soxla ñu ngi yittewoo lu toll ci quatre cent mille mètres cubes d'eau muy lu tollu ci ñeenti téeméeri junni mètre cube d'eau te usine boobu mënula génne lu ëpp téeméeri junni mètre cube do muy cent mille mètre cube donc bu bu bu yàlla dogaloon ñu xëy forage yëpp fay euh, robinet yëpp fay euh, maral ak ndakaaru usine bi du ko mën a euh, faj donc li ñu li ñuy woowee réserve stratégique loolu firndewul leneen li mooy beneen bi mooy étude tarifaire bi bu ñu ko noppeegul te étude tarifaire bi noppeegul beneen ponk la te euh, bu ñu ko xaymaa ngeen déglu baax li may wax lu jëm ci wàllu tranche sociale bi euh, li nga xamante ne mooy ndox mi dana leen dikkee lu toll si 2000 francs CFA le mètre cube jàpp 4000 francs CFA si tranche sociale bi alors que actuellement mu ngi toll ci 189 francs CFA donc je vous laisse faire la différence bu usine boobu sottee nag. am na beneen problème loolu beneen ponk la mooy acceptabilité sociale maanaam ndax nit ñi Charles doon na ko wax keroog ndax nit ñi dañ ko nangoo naan ndax nit ñi dañ ko ñemeñe naan donc pour ñu gérer problème acceptabilité sociale bi dafay laaj une campagne de communication boo xamante ne yeneen i coût lay impliqué donc koppar yi ñuy dépensé jeexagul ponk bu mujj bi nag moom mooy waa Mbour pare leen ndax euh, ci ba tey ci gëstu ñu amal projet bi fii si xëng bu sottee Mbour lañ jëm def la même chose Euh, te loolu bés bu xewee dana doon loo xamante ni dina indi ay yàqute donc fileeg ñuy xaar ay leeral ci euh, askan wi mu bàyyeekoo ci waa SONES ndax projet bi actuellement lu mooy koppar yu bari si dugg toll 137 milliards de francs CFA gisaguñu si lu dul aw lor. kon loolu mooy leeral gi ñuy xaar également waa SONES ñu décider ñëw wax ak askan wi wala ñuy wax. individuellement ak ñi nga xam ne ñoom ñoo siy coow parce que loolu faju ko parce que Sénégal moom moo ñu ñor ginnaaw loolu ni ñu ko waxee si njëlbeen dëgg ak leeral mooy li ñu warloo ak yéen te réew mi ñëpp ñoo ko bokk ginnaaw réew mi ñoo ko bokk bu ñu gisee lu yàq dañu koy wax bi passé ñu ngi gis portele bi bu ñu ma ko wanee muy portele njiitu réew mi euh, di Macky sàll muy sëggal ren bu Espagne ñu jël photo bi ci Facebook bi boole ko ak euh, photo bu maître Ablaye Wade bu muy fon drapeau bu Sénégal ngir wane ni moom dafay dem di si jotal tubaab yi pendant que ñeneen ñi ñu ngi euh, fonk drapeau Sénégal bi si gën a grave mooy dañuy wane président Macky Sall mu ànd mu toog ak ay sëriñ ñu toog si seeni fauteuil wane waale photo bi muy sëggal tubaab bi liñ li siy commentaire nag mooy ne woy woy woy fonkul suñu cosaan bu demee fële fonk tubaab yi di leen si jotal loolu propagande la. Euh, ndax ñu bari ñu ngi dem ci sens boobu moo tax ñu war ko leeral lii protocole la c'est très normal bi Obama di dugg ci jumaa ji summi ay dàllaam ñëpp dañ tàccu ne wéy dafa respecté lislaam non non non c'est un protocole da ko war respecté donc ku dem ci am réew fekk fa buur bu jigéen ñu koy sukkal da nga kaa sukkal comme dañ koy sëggal moom sëggal na ko kon pour mu leer seen bopp lii loolu yàq rek la kon nañu moytu réseaux sociaux yi ndax ñi si war a nekk am na ñu bari ñu si nekk ñoom tamit mënuñu si waruñu si nekk parce que dañu leen di manipuler te am nañu ay carte d'électeur donc propagande la nañ si bàyyi xel loolu mooy li nga xamante ne nii bëggoon nañ ko leeral ci wàll woowu et eh bien loolu lépp amul mbir mi protocole dong la moo waral Macky Sall doxale noonu président de la République bu demee gis buur roi euh, reine d'Espagne daf ko war a sëggal waaye balaa ñuy sóobu si waxtaan wi euh, dañuy euh, tiitaru delloo njukkal suñu benn doomu sénégalais suñu ñoñ wu nekk ca Finlande Finlande gis ngeen fa mu nekk ca nooru Europe gune gi fexe na ba euh, ci taxawaayam ñu daal di ko fay def citoyen d'honneur ci ancienne euh, capitalu réew ma di Turku maanaam bu doon Sénégal tey dañu naan Ndar def nañ ko citoyen d'honneur muy Mamadou Paco Diop di fa jàngale dem ba Finlande di fa fexe ba dugg système bi di fa jàngale nekk ab jàngalekat waaye tamit di tàggat ay xale kon muy royuwaay clin d'œil pour yeneen sénégalais yi nga xamante ne nii ñu ngi nekk ci biir àdduna euh, bi kon mbokk yi bu ngeen ñu xaaritu rek ñu sóobu ci biir waxtaan bi. bi gaawantu fatu mi ngi doon gaar tey nag li ñuy waxtaanee jëkk moom mooy mesures yu bees yi nga xam ne jël nañu ko mu jëm ci sécurité routière sécurité routière ku nekk xam na ni liy dee ci euh, réew mi bari na ci tali yi ku nekk xam na ni li ñu dénoncé ci anam yi muy doxee bari na si suba la mujj tey lii la mujj lu toll si juróom-ñaari doomu aadama faatu ci euh, ci euh, ay chauffeur yu topp seen bànneex bakkan ci ñi ko nettali ñi ko fekkee la ñu nettali lu toll si ñaar fukki doomu aadama ak lu teg sax am si ay gaañu gaañu yu méttee métti tey nag li ñuy waxtaanee moom mooy point de vue acteurs yi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu transport bi ñi ki ñu tànn mooy AFTU euh, ki leen fi tey di Djibi Ndiaye di général waaye laataa ki nga xamante ni moom mooy directeur de transport di euh, Cheikh euh, Oumar Gueye bu fekkente ni agsi na allo Cheikh Oumar. waaw kay bu fekkente ni donc Cheikh Oumar Gueye ne na ñu jukkil rek lenn ci li nga xamante ne nii moom mooy euh, mesure yooyu waaye fileek mu ñuy dab ci biir waxtaan wi ndax suñu yéene moo doon tàmbaleex moom ngir xam fan la ñuy sukkandiku ñu dalal jibi salaamaaleykum. maaleykum salaam alors Djibril Ndiaye mesure yu bees yi booba euh, tey yeneen si xeex booba tey euh, nguur gaa ngi si liggéey sotti na ban première lecture nga si amal. ginnaaw bi ma nuyoo waa plateau jàkkaarloo bi yëpp di leen leen gërëm di gis seen liggéey di ko rafetlu. Euh, ñun mesure dafa ñëw dal suñu kaw li tax maa dafa dal suñu kaw mooy euh, ñun ay transporteurs professionnels lañ. Hmm. Euh, no seulement ñu ngi Dakar dans l'urbain muy aftu bi nga ko waxee. Hmm. mais ñu ngi ci interurbain bi di jële ay nit Dakar leen yóbbu ci région yi ñu ngi aussi ci transport de marchandise bi. donc on est dans tout tous les niveaux ci transport. Hmm. donc accident yi daf ñuy con dañuy daf ñuy daf ñuy concerné daf ñuy laal ba tax na mesures ñu jël nii. ñun dañ ko doon dund avant ñuy jël mesures yi. parce que bu fekkente ne la visite technique la. Mhm. Euh, centre bi ñu fi teg man maanaam ne centre diagnostic la. Euh, di nga am sa oto comme ni nit di demee seet def bilan ci ci ci hôpital. Mhm. Euh, centre bi loolu lay loolu lay loolu lay jëriñ. donc loolu xam ne ñun ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko favoriser ñoo ko ñoo ñoo ci taxaw. Mhm. pour Séné état du Sénégal taxawaloon ko à l'époque. je me rappelle en 2009 mission bi ñu njëkk a def en Tunisie. man maa représenté woon transporteur yi foofu. Euh, day centre bi sax dafa incomplet parce que lu tax dafa incomplet mooy euh, dafa nekkoon visite technique nekk permis nekk euh, en même temps mut centre de mutation c'est-à-dire guichet unique cest à sa oto boo ko indee tey si port bi rek day am doon nekk fa comment dirais-je impôt domaine nekk fa mm-hmm. service de mi nekk fa ba sa permis sa sa asafurla sa carte grise mm-hmm. le matin di nga ko mën a jot le soir donc centre bi incomplet na ci côté boobu. Mm. état tànn ci rek mooy euh, comment dirais-je euh, visite technique bi. Mm-hmm. mu nekk la aussi lu lu am solo. Mm-hmm. mais ñu war ko compléter aussi. Mm-hmm. ba pare nag vulgariser ko dans dans les autres régions. très bien donc ñu balaa ñuy sorey ñu ànd ak euh, directeur des transports muy Cheikh Oumar Gueye salaamaaleykum gay waaleykum salaam wa rahmatullah. alors euh, ginnaaw euh, mesures yi nga xamante ne jël nañ ko bees jëm ci wàllu transport anam yi muy doxee dañu bëgg nga jukkil ñu si sénégalais yi li nga xamante ni xëy na moom ngeen si gën a bëgg a fësal wala moom ngeen yaakaar ni xëy na si ngeen ëpp yaakaar ngir ñu mën see sukkandiku. waaw jërëjëf Khalifa donc euh, soo ñu commencé ñu nuyu ñu toog ci plateau bi yëpp donc di beral nuyoo jibi nga xam ne suñu xarit la suñu frère la Jibi Ndiaye. ak euh, sa invité yëpp ak euh, animateurs yi fa toog yëpp ñoom professeur rek ñoom euh, ñoom buubaak ñoomin comme ñoom ñoomin buubaak ñoom ñëpp très bien donc ni ko waxee noonu la donc xam nga boo koy seetlu ak mi ñu génn accident yi bare na bariwaay ba nga xam ni yóbbee na njiitu réew mi plusieurs fois sax bu ci mujj mooy bu ñuy def levée de couleur yi fële à Saint-Louis mooy tournée économique bi mu dellu si waat ci wàllum accident yi dellu si waat di wax nañ taxaw tem xool nu ñuy xeexee accident yooyu te loolu appel ba bu mu koy def daf ko jiital ci administration bi administration bi mooy joxe permis administration bi mooy joxe visite technique administration moo yor contrôle ci hmm. waaye du yem ci ñooñu rek dafa yem ci aussi acteurs yi mooy euh, automobiliste yi ci wàllum comportement ci wàllum jàng ak ci wàllum jumtuwaay jumtuwaay mooy oto yi. Hmm. oto yi ak nu muy bindoo ci wàllum visite technique yi ak responsabilité bu ci nit ki war a am di fàttali ni rek ni visite technique euh, du jeexital c'est pas une fin hmm. nit ki dana dem visite technique tey waajal otoom ba mu jekk dem pour jàll bu jàllee dañuy seetlu man ak sama morom a ci am dañuy bàyyeeku Hmm. déet nii am naa visite technique rek xëy na damay xaar ba at bi jot wala ba 6 mois jeex bu dee auto transport la ma dem defaat visite technique ba tax na euh, li ma war ci wàllum entretien préventif lu ci bare bare bare bare automobiliste duñ ko def hmm. donc loolu euh, ñu ni loolu responsabilité la léegi dix mesures yi boo ko déggee hmm. alors euh, duñu ñëw pour opérationnaliser décision yi nga xam ne jëloon nañ ko ci conseil interministériel di fàttali ni conseil interministériel boobu donc ñu ngi ko teniroon le 9 février. Hmm. te acteurs yëpp ñoo ko seqoon. képp ku yëngu si wàllu transport rek yaakaar naa premier ministre invité woon na la ci ak kuréel boo mënti bokk nag invité woon na la ñu toog waxtaanee wàllum accident yi ak lan moo ci jur comme saafara lan lañu war a indi saafara nga xam ni dafay doon benn benn solution ba nga xam ni. Euh, participative. ci biir loolu. Hmm. mu amoon trente une décision ou bien mesure euh, d'application immédiate la li si das yi peut-être c'est à court euh, à très terme li si des yi c'est à court et moyen terme. Hmm. pour xeex wàllum euh, accident yi. très bien yi si yi si gën a fës si ñu gën a am yaakaar très rapidement. non lu si gën a fës si ñu gën a am yaakaar mooy daanaka ñu appliquer code bi. Hmm. nu mu waree ku appliquer code bi mooy lan tey da ngay gis ni euh, oto yu bare ñu ngi daw te amuñu visite technique lu koy firndeel. mooy ñetti fan yi maa ngi def euh, contrôle routier euh, mixte avec la police et la gendarmerie mais lu ñu gis ci ay faux documents faux visite technique. Hmm. faux faux faux permis faux fausse carte grise lu ñu ci gis ci ay faux mais yooyu jéggi na dayoo. Hmm. donc moo tax ñu ni ñu renforcer contrôle routier ci wàllu woowu pour euh, xeex oto ba nga xam ne amul visite technique ñu yóbbu la ala ñu yóbbu la fourrière. waay bi mooy transformation oto yi. oto ba nga xam ni des njëlbeenam du woon transporter ay ay nit. ñu transformé ko def ci euh, aménagé ko di si transporté ay personnes ñu ni loolu nañ ko arrêté. Hmm. beneen bi mooy yokk yokk baga yokk place mooy supplément de place yee yu ñu demee. Hmm. yooyu tamit ñu interdire ko. Hmm. surcharge bagage yi surcharge personnes yi ñu interdire ko euh, am na am na auto transport yi nga xam ni wala auto auto Dakar tout court euh, pour daw centre contrôle technique gu Dakar. moo tax ñuy dem di réimmatriculer leur seen seen oto bopp yeneen région yi loolu nañ ko dakkal en attendant ñuy teg centre yi très bien région yëpp te centre yi si région yëpp dina dina tegu insha allah hmm. balaa ab di jeex mais en attendant nañu hmm. nañu nañu dakkal loolu te ñu appliquer contrôle routier lu si des nag mooy hmm. wàllum euh, vélo taxi la moto taxi ñu immatriculer leen wutal leen wutal leen ay casque de sécurité très bien lépp mooy wàll permis transport bi aussi ñu ñëwaat ci donc loolu voilà léegi nag soo ma ko mayee. aussi ma ma jàllale benn benn benn benn benn. précision bu la bu solo. am na benn document buy circuler dans le pays. qui fait état de l'augmentation des amendes forfaitaires. oui tout à fait j'allais y venir oui. ça c'est un faux document. c'est un faux document. c'est un faux document c'est de l'intoxication. oui mooy li ma doon wax sànq rek euh, nga baal ma mooy li ma doon wax sànq il faut il faut ñu def attention ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi du ay fowukaay. voilà te encore une fois ñi nga xamante ni euh, ñoom ñoo si war a ñoo la sécurité intérieure nañ si jóg. parce que loolu mën na jur musiba. li euh, dans dans la même veine dans la même veine barka démb. dans les mêmes réseaux sociaux si lañ jàllale ne Serigne euh, Thiawane nee ne balaa ah. balaa ngaa tëdd. na nga ah. sangu wala bala ngaa ah. tëdd na nga tooyal sa bopp alors que amul dañuy. xam nga après kenn xamul leen ni loolu. c'est c'est très très dangereux bu ñu si jógul teel. indi woon na benn benn genre même réeróo. oui yenn acteurs yi. gis nga leen ñuy def conférence de presse fii état bi ñuy xeex état bi génn ay ay amande amende fekk dara ju si dëkk. oui ñu bare woon nañ ma ma démentir ko. Hmm. démentir naa sax si seen si seen groupe bi. très bien euh, RFM ce matin. Hmm. démentir nañu si RTS ak yeneen chaînes yi. oui pour wax loolu c'est pas un document de l'état du Sénégal. merci l'état du Sénégal s'il y a s'il y a vraiment augmentation de demande Parce Très que bien. c'est le code. Mmh, très bien. Donc c'est une modification du code, donc ce sera un décret présentiel. mesure sànq ba tey mais mais professeur nga wax nga ko yow les principales mesures je pense que. professeur Fatick là principale mesure principale mesure. <laughs> tu nous as bien tétanisé. avec euh, donc oui. allez-y donc principale mesure je dis dama ni dafa immédiate. application immédiate oui. mooy mooy ñu appliquer code bi ni mu nekkee nii. ñu hmm. appliquer ko. oui c'est-à-dire renforcer le contrôle routier. Hmm. yeneen mesure de phare yi nag mooy l' application du permis à point. l' introduction de de de en tout cas de l' application audiovisuelle lors de l'examen du code. c'est la numérisation et la sécurisation des titres de transport. très bien pour lutter contre les faux donc hmm. te ak renforcer les les les services d'accueil médical. services d'atteinte et d'urgence médicale en, mm. en cas d'accident. ñu renforcer aussi les moyens de sapeurs-pompiers. Mm. pour les interventions. loolu donc loolu yëpp ci solution globale bi la bokk. absolument bu ñu paree nag door a teg euh, une école euh, euh, des métiers de, la route. très bien. ensuite ñu réformer les auto-écoles su ñu paree ci loolu yëpp nag. loolu mm. rendre obligatoire maintenant. le passage à l'auto-école pour l'obtention du permis. Très bien donc mesures yooyu yëpp dégg ah waaw de am nañ deadline. oui. Euh, deadline bi mooy d'ici la fin de l'année. d'ici la fin de l'année. parce que c'est pas c'est pas des effets d'annonce. Mm. c'est déjà l'opérationnalisation donc la mise en œuvre de ces projets qui sont déjà Euh, qui ont jeex na jeex na euh, très bien donc donc merci beaucoup directeur mais du la bàyyi te euh, laajuma la benn préoccupation boo xam ni notamment Bouba daf koy wax tout le temps tout le temps tout le temps bu ñuy wax affaire transport. mooy mooy visite technique bi xam nga sànq ne nga am ñu ngeen jàpp ñu yor ay faux documents. visite technique mais mais mhm. am na ñoo xamante ne nii. am nañu visite technique bu normal bu légal boo xam ni kenn mënu leen si jàpp. alors que seen oto ku ko xool xam ni warul daw. voilà boobu la ñuy wax xam nga xam nga boo xoolee mesure yi. Hmm. benn première mesure bi du ñu wax ni moom laa doon wax sànq bu mu nee visite technique c'est pas une fin en soi mooy boobu ñuy wax noonu ba muy dem defi visite technique li ko waroon ci oto bi yëpp defar na ko. oui ah d'accord mais bu ma une fois que moom visite technique ba. oui day sàggane entretien bi moo tax tax code bi code bi aussi code bi dafa ni. Hmm. oto yi demee noonu. même bu amee visite technique. Mhm. si euh, de visu il présente des des un danger. pour ouais. les mhm. pour en tout cas les transport les transporter. Mhm. et en tout cas la circulation. Ouais. ça peut faire motif. Ouais. en tout cas de mise en fourrière et de mise en demeure du propriétaire pour des réparations. après avoir euh, réparé il y a une commission technique qui va qui se réunir pour pour pour en tout cas euh, euh, dire si le véhicule est apte pour revenir à la situation ou pas. jërëjëf code bi fu mu toll nii loolu mu ngi si code bi. oui très bien bu ñu am doute bi kii am na visite technique ou pas. dinañ ko dinañ ko leeral may na may na may na tey ñu ñu immobiliser ko. oui donc merci beaucoup Cheikh Omar euh, Gaye directeur des transports je pense que leer na merci beaucoup merci et puis euh, bon pendant toute la durée de l'émission boo amee précision également mën nga mën nga ñëwaat euh, boo ko souhaité alors Djibril Ndiaye alors alléluia. non c'est pas encore Pâques c'est pas encore Pâques. c'est pas euh, Charles. Euh, alléluia bon, euh, ouais, ouais, Charles kooku Charles. Oui. non non parce que ci décision yi li may wax rek. que ni ñun nekk loo xam ne dañu koy dund depuis très longtemps. mais dafa am lu ma si lu ci nekk problème. Mhm. parce que accident yi boo seetloo. Mhm. guddi lay nekk. timis fajar. nga xam ne sa vision day wàññeeku. doo am doo am doo am yoo xam doo am temps wu réfléchir. doo am mhm. temps wu réaction. te loolu tamit. li ko gën a yokk mooy tali yu xat yi. waay euh, tey damay def proposition que ci dix mesures yi bi ñu waroon jëkk mooy ñu élargir les routes RN1 RN2 ak RN3. élargir ko en deux fois deux voies. Hmm. donc am leen satisfaction ci affaire bi donc. non c'est des c'est des c'est des décisions ah, hmm. par l'État. moom nee ñëw bokkoon ngeen ci conseil bi naa sa réaction. Hmm. dégg naa li mu wax mais tous les acteurs pas conviés man bokkuma ci bokk ñi ñu convié woon. waaw ab dama ñëwoon. peut-être am na ñu dem mais man fekk yëguma ko. dégg nga secteur général bi. dégg ma wax yëguma ko ma. attends euh, ma da ngeen déggul seen biir qu'est-ce euh, euh, dama la expliqué ne la. E mm-hmm. am peut am na GIE yoo xam ne peut-être convié nañ leen. mais ñun laa convié wuñu. ah en tant que. entité en tant que entité. ah bon convié wuñu. Mm. te on joue un rôle. un rôle important dans le transport. bon urbain interurbain ak et de marchandise. na c'est un simple malentendu. très bien ça peut être mm. mais li may proposer te xam naa ne dinañ ko dégg parce que on télévision de Futurs lañ nekk. nga mm-hmm. xam ne ñëpp Sénégal yëpp ñoo ko si daan. Mm-hmm. dafa war a nekk mesure bu njëkk ñu élargissement des RN1 rn foofu la accident yi amee. Mm-hmm. parce que dafa xat tali boo xam ne matul 6 mètres hmm. ku def benn kii bu ndaw rek di nga dal sa morom c'est vrai benn ñaar ba mooy doublé parfois waaw ñaari engin yu jógee bi jógee nii bi jógee nii bu ñu hmm. dalantee dina am dina am ay mort bu fekkoon ne euh, comment dire deux fois deux voiles nag hmm. kenn lu laal sa morom mu am glissé ci diggante bi ku am problème tamit ci àll ba nga jëm dans le te du nekk lu graaw mhm. donc lii mooy mesure bu njëkk mooy élargissement des des routes nationales yi nga xam ne donc sori avant le bëgg très bien donc yooyu concentration yoo xam ne laaj nañ ko mhm. voilà très bien kon xëy na xëy na lu ñëwaat la après euh, Birima waaw Khalifa mhm. maa ngi nuyu ñëpp d'abord bala maa commencé dama lay rectifier tuuti euh, Birima nga baal ma euh, mais après nga rectifier ma par la suite wax da nga wax sunu tur ñu ñëpp sama tur bokkuma ci. sama mandat si sa tur la. kañ laa la tudd kañ laa la tudd waaw waxal.

Birima lu leer laa wax les propos que je li ma wax fii nii ah. ça n'engage que moi en tant que journaliste parce que du ma wax lu ma xamul du ma wax pour lu neex doomu aadama damay gëstu ji ñëw leeral waaw gëmoo que ça mais c'est de source digne de foi de source sûre tu libre tu libre Birima tu libre oh, oh, yow bokk nga si ñu oo si ñu oo yow bokk si ñu oo bokk nga si oh. moi dafa am lu ñu la wax lu mu xamul. dama la wax daal mooy woo waa SONES ñu toog mais mais démarre. na waa SONES ñëw toog fii ñu wax waa SONES ñoo bëggul toog fii. c' est problème bi. waa d' accord dégg nga. l' antenne est ouverte wax naa ko ci démb waxaat naa ko tey bi hmm. man dama jàpp ni mesure dafa sax tuuti. Hmm. yi ñu jël dañ ko war a yokk. waay. dafa war a gën a corsé. parce que xalifa. ñun du ñu ay muus. duñu ay weñ ba chauffeur si dañu rey tous les temps di ko tey xam nga accident lay am accident accident la mais di fo ba rey ay nit xoolal tey di xew soriwul tey ci ngoon évidemment tey ci ngoon benn kaar bu mag ak benn ñu kaay ci oto bi di ci kaw télé bi di fo di dublante di fo ba ba ba juum mbëkkante sept morts dañ doon fo moo tax ñëw tiit ba daw ci oto bi te gis nga journal tey hmm. ñoo xam ne dañoo tiit ba daw ci oto bi xam ñooñu est-ce que ñooñu conscient nañu doon def hmm, hmm. aftu mi mu bokk ba ñuy ñëw fii ci réew mi ñuy changé kaar yi la ñu waxoon ñi nga def ba léegi yéen ñëpp ngi leen di yoroto hmm. la ñu waxoon duñu wut duñ taxaw ci ay arrêt spécial la ñu am hmm. la ñu waxoon fii non hmm. duñu wàcc fudul seen arrêt dañu am guichet duñu am koy taxaw ci mbedd mi di mais il faut pire que li car rapide doon def ñoo yàq circulation Dakar bi guddi toll. te ñoom ñooy kilifa tax mu ñu réglé loolu. Hmm. waxoon ba ñuy commencé aftu. Hmm. ak li muy doxu man li may wax. Hmm. Sénégal lañ may gis. bu fekkee ni aftu la ñu waxoon ba ñu koy commencé ñi ngi koy def ba léegi. nañ jugé. très bu fekkee defuñu ko nañ jugé. moom na wax devant les Sénégalais. mais ku ne xam ne taxawtuñ fu la neex lañuy taxaw. dañuy couper nit ñi dañuy taxaw teg ay apprenti ñuy taxaw comme ni bu njëkk bi la bu njëkk bi ñuy commencé. dañuy rek bi ñuy commencé au début. ku ne xam na ni c'était bi mu commencé c'est bien mais aujourd'hui ñoo yës ñu doon changé. très bien waxoon naa jamono jooju ne leen oto weñ rek la na nga bëgg mel lay mel ali du oto bu ñu doon changé junni oto yu bees it. te nit ñi ca biir kenn changé leen les mêmes attitudes mooy am. tigi je pense que. li kiy wax du ay télé yu mag même bu télé bi yamee Afrique la ñu nekk ñëpp réew yi ñu takkaloon yëpp télé yooyu am dama ni même bu yemee nga dawal correctement ku dawal oto am accident. Hmm. accident ak oto ñoo ànd mais bis boo yeewoo gis chauffeur dëkk loo xam ne et c'est tout le monde ah. mm. ñoom ñoo ci ëpp d'accord xañ na. Mm. mais même particulier yi Sénégal dañoo war a xoolaat ni ñuy dawale. te bañ a foyee suñu bakkan yi oto du fo. te du caaxaan. très bien très bien après jibi di nga réagir euh, on fait juste le tour de Bouba. waaw mais en fait. Mm. xam nga euh, dafa am loo xam ne pour man euh, dafa ànd ak ak conjoncture. dafa ànd ak ak réalité mooy jamono mooy il faut ñu xam que ni euh, ay tal yu ndaw lañu yor loolu dafa am te c'est pas euh, ci fii ak décembre wala fii dans cinq la suñu tali yi jékki-jékki yaatu tali yi ñu am a kës néew ñu yaatu muy autoroute à bi óor na ma ni accident yi bëriwul comme ni mu bëree ci àll bi parce que tout simplement am na ay voies yu bëri am na yoo xam ne jarul sax creuser très loin parce que tali aussi yaatuwaay la ah ak baax ak éclairage mais man dañuy trouver ay dañuy wut ay mesures yoo xam ne dañuy bàyyi l'essentiel ñuy nekk ay mesures parce que ñu ñuy trouver ay mesures yoo xam ne pour ñun bu ko defee dina dina changer. Hmm. et je ne pense pas que vraiment que dina am benn amélioration parce que le problème est un problème de fond. ah oui oui parce que xam nga aujourd'hui boo jëlee chaque jour ma wax leen ko fii. Hmm. voiture de transport buy transporter ay nit rigueur bi ñu leen war a teg balaa muy daw. balaa muy daw dañ ko war a yokk oto dafa am durée de vie business boo boo boo boo investir ci dara ah mu jural la ba benn jamono da ngay xam ni lii jeex na nga dem ci leneen pour man rigueur bi ñuy dox suñu ot voiture de transport yi moom moo nekkul parce que oto yu ci gën a bëri c'est pas un problème de visite technique yu faux ak yu vrai xam nga la may problème oto yi dañoo war ñi si gën a bëri waratuñoo daw. Hmm. xalifa a priori bokk na si mesure waaw mais non non mais non hmm. xam nga lu gën a garaaw. Hmm. parce que dañ koy dañ koy traité comme comme détail xam nga mi ngi wax que ni que ni bu ci amul dara ñu dem réparer la am na yoo xam ne mënuñu ko réparer dañ ko war a sànni. cest xam nga ñu ne oto weñ la 2017 la ñu nekk. oto yi ngeen di dawal yëpp. dafa am airbag. dafa am dafa am euh, ay frein yu dëgër dafa am protection yu ci nekk. suñu oto yi benn amu ko si. te mm. te ñun ñoo war a gën a exigeant suñu bopp. Mm. parce que aussi créé wuñu technologie boobu yëpp. pour rien dañ ko créer pour oui. sauver des vies on ne peut pas vivre à peut-être trente ans en arrière aujourd'hui li am ba am mooy que nañu wax teg affaire visite technique ak affaire yi nañu ubbi suñu ay nañu utiliser suñu bët ak suñu mm. xel boo génnee fii saay taxi yi cinquante pour cent waruñoo daw voiture de transport yi plus de soixante pour cent waruñoo daw loolu problème de base la léegi boo amee nit joxee nit tali bu xat hmm. bu lëndëm oto bu baaxul toutes les conditions non toutes les conditions pour mu rey yenn ay moromam mais on ay nit la ñu rek nit rek la ñu mën nekk c'est-à-dire que aujourd'hui nga nekk si benn di daw trois heures du matin wala quatre heures du matin si mm. benn tali bu bu route bu étroite comme ça nga am beneen camion buy nekk ni amul amul xamoo fu animal di demee xamuloo fu mm. pax di ñëwee après nga bëgg nit bi mu nekk jeune yi si biir loolu si biir loolu am na beneen lu am importance nit nit la mm. dafa am nit heure yoo xam ne di nga ko surtout wàllum dawal heure yoo xam ne da ko mën a fonctionner ci wàllum dawal après da ngay arrêter sinon mbëggum xaalis ah on fait travailler des gens au-delà de heure yi ñu war a ba nga xam ne nit bi boo seetee fajar. fajar moment boobu heure yi nit dañu nelaw. te ñooñu peut-être boo dawalee pendant huit heures de temps bëgg a def enchaîné. mais bien sûr que da am hmm. ay accident yu normal la bu normal mais bu raxee rek dafay jur leneen. mooy yeneen yi nga wax. mais airbag yi dafa sori cest à boo dama ko def nii rek. dem ci benn extrémité bi mais avant nga egg airbag étape yi ñu am yëpp moom mooy que waaw euh, li ñu ciy wax euh, damay boole ñaar yi rek. Hmm. mais surtout booba c'est vrai que euh, vétusté bi am na oto yi màgget nañ lool lool lool lool lool waaye. li biri wax la cause humaine. Mhm. mais nañ ko ñemee wax moom moo nekk au centre. Mhm. am na ku fi toog euh, fàttali naa chiffre bi mu joxoon. Mhm. ne accident yi bu amee xamatuma chiffre bi mais ça. 7000 ah, donc 24000 handicapés à vie. waaw kii humain bi laa bëgg wax chiffre bi mu joxoon. mais c'est 92 pour cent. 92 pour cent pour cent yoo xam ne bu accident amee. mais défaillance humaine la. mais Khalifa là c'est extrêmement mais am na peut-être fu xel di dalee mooy bu fekkente ne nii. parce que ñu bari ñu ngi dee à l'hôpital bu dee sóoraale nañu aspect boobu ci nouvelle mesure yi xëy na mu tane. waaw moom loolu dañ koy rafetlu. moom chapelet de mm. mesure bi nga xam ne joxe na ko. wax dëgg yàlla xëy na mën nañ ci am yaakaar. Mm. mais dama jàpp ne. Mm. fa ñu war a liggéey fondamentalement mais mooy ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal Khalifa. parce que chauffeur yi. boo xoolee tali bi. nga gis nañuy dawale mais dangay ngay tiit dañ la naan fi mu nekk nii ki nga xam ne moom moo nekk en danger mooy kii respecter la code de la ki nekk en danger. mooy kiy respecter le code de la route. Mm. Mm-hmm. ça veut gars yi à côté de ce code de la route là nañ benn code boo xam ne ah ku mel ni yow bu nandul code boobu finalement day teg bakkanam ci suuf. waaye c'est extraordinaire. Mm. kii nga xam ne moom moo yor réew mi. il y ba muy nekk euh, su ma jumul premier ministre la woon wala ministre de l'intérieur mm. ba muy wax tolérance zéro nit ñi di mbamb mais ndekete il avait absolument raison tigi il avait absolument raison mm-hmm. parce que lii ñu gis nii dowul ay oto yu màgget mm-hmm. dowul ay tali yu xat mais ay ñoo xamme la la ñuy def mais joxuñ ko àq bañ ko war a jox joxuñ ko yelleef bañ ko war a jox boo xoolee tali bi dalay jox presque un condensé mais ci sénégalais fi mu toll ci waru discipline. Mm. ci wàllu jikku. xalifa mm. bu ma ciy wax xool naa ci waxee parce que mais dafay doy waar ngeen mm. baal ma ci wax ji. ci ñun lañ bokk ay samba boy di volant yoo xam ne daf lay wóor na ñii mais waruñ autoriser ñu téye ay volant. mu leen neex la ñuy dawale. nga baal ma mon parent de l'AFTU. keroog ba ma ciy discuter ak euh, ministre. Euh, mu lay nuyuwaale Birima ministre euh, mba mba kii euh, le ministre la culture. Euh, Mbagnick Mbagnick Mbagnick Ndiaye far ñu daje fële mu naan ma foo jaar di ma ma ne ko non roplaan mu oto yi léegi dañ maa traumatisé ba nangam. may rafetlu d'ailleurs liggéey bi muy def parce que maa ngi fekk mu dajale tous les chefs traditionnels. Mhm. yi nga xam ne Casamance lañ nekk mu ne ma yemalewu ma ko fii rek j'ai fait le tour du Sénégal. Mhm. ma koy félicité en en parenthèse ci liggéey bu rafet boobu. Mhm. parce que day jël chefs traditionnels yi de loo xam ne dama ci teg bët mais socle la hmm. donc Mbacké vraiment ñu ngi lay euh, Mbagnick Ndiaye ñu ngi lay ziar bu baax di lay rafetlu ci liggéey boobu mais xalifa boo demee hmm. booy am réflexe ku mel noonu hmm. moo la ndax jaaroo fii parce que wax dëgg yàlla man bu ma nekkee ci oto sax damay ànd ak traumatisme mais xalifa ça dire quoi que chapelet de mesures yëpp nga jël sur le plan technique sur le plan matériel yokk ay tali ay nangam baax na waaye il est temps nga respecter la vie des sénégalais. Mm. respecter la vie des sénégalais mooy. Mm. koo xam ne da koy foye mais nga nangu ñu nag dañoo mën a masla mm. y a des criminels de la route. xëy na y a des criminels la ko waxoon de la plume des criminels du nangam mais y a des criminels de la route. Oui. organisation yu mel ni aftu. ñu leen di ñaan ngeen gën a accentuer mais travail de formation de conscientisation. chez les chauffeurs. li Birima wax dëgg la. xam nga lu ñuy ñëpp di di di jëwee dégg ngeen ko sax ci réew mi ngeen di yeewoo. Hmm. ah ñii de xamuñ différence be car rapide yi hmm. ñoo raw sax car rapide yi. Hmm. keroog may traversé ma ne mais comment na ngay créer une ligne amoo garage. xam nga la may wax géej waaye la dëkk amoo siis boo ñëwee ñun ñemetoo dox ci kaw tali bi amul garage amul euh, da ngay créer ligne amoo foo ko def ci kaw tali bi la tataay di gaare kii wàcce ñaari ruuf yi kii wàcce ñaari ruuf après c'est compliqué waay comment on peut créer une ligne. Hmm. ba pare di wër foo ko def amoo foo ko def. nga ñëw ne ko dëj ci kaw tali bi. Hmm. le piéton fa mu waroon jaar amul fu mu jaar ci kaw tali bi la jaar auto écrasé ko. Hmm. kon aftu delloo leen ce travail de sur l'humain de conscientisation. liñ leen di jëwee mooy. ñii fi nekkoon de boo koy wax sax ñun la mais prof bul sonal sa bopp. comme li Birima wax oto yi moom ay oto la rek mais ñi leen doon dawal car rapide yi ñoom ñooy dawal même oto yi dara changé wu ci côté boobu war def ay jéego mm. bi mooy mm. ces def de la façon la plus impitoyable yokku tali am na waaye koo xam ne day téye volant di njaaba njale ci ko tali bi boo ko joxoon oto bu gën a yaatu àdduna bi mu ci dara alors Jibril di nga di nga réagir mën nga notal rek après Charles waaw waaw may ma comme moom nuyoo ministre man ma nuyoo Kajoor waa Kajoor ak Pape Makhtar Sène Mor Diagne ñooñu ñoo xamante ne duñu. yaa ngi dédicace. waaw man damay dédicace du yow fi toog wax ba bàyyi fi publicité bu di fi jaar gars yi fayuñu sax seen publicité. ndeysaan bu a fait de la publicité. waay defal na nga ko waay Charles journaliste attention à ce que tu dis ah. waaw moom kay c'est eh commentaire. le commentaire libre tu as 30 ans j'ai pas fait de commentaire Charles. commentaire libre. revoir les gens rédactionnels àggal. waaw bu la neexee de xam nga. <laughs> alors Charles Faye dëgg bi comme tout c'est dommage quoi ah, ah. dëgg bi fii lay nag ñuy jaar fële on a un sérieux problème 92 mm, mm. pour cent accident yi manœuvre humaine la origine humaine moo si nekk. 92 pour cent sur 100. téeméer boo jël juróom-ñeent fukki ak ñaar. ok mm. loolu bu amee. man lu may njëkka a interroger ban façon nit lañu am affaire. nit kooku lan mooy philosophie de vie am. lan mooy éducation lan mooy conscience am. lan mooy vision am bu ñu ci amee loolu. boo amee vision faw say tali yaatu. parce que foo nee woon 1960 munoo ko fa nekk 2017. oui. la circulation l'économie c'est la circulation des biens et des personnes qui créent le flux monétaire ah lan la ko. yow xalaatuloo loolu ngay nekk si yeneen dafa dafa am loo mën ak loo mënul. Hmm. combien ça nous coûte xaalis bu dul jeex. combien de familles décimées. ay famille familles entières parfois. ñuy toog di wax ba si loolu mais parce que ba léegi waxantewuñu suñu biir dama fii laa toog ma ne la dafa am ay autoroute Dakar ñu xool ñu teg benn fer bar de fer nii benn mur de fer mm. rideau de fer ma ne la loolu c'est une inti inti insulte à l'homme nga ne ma déet ma ne la c'est une insulte parce que moi je suis insulté du ma xar du ma nag du ma du ma mbaam du ma dara nit may jaar si suuf j'ai un problème xam nga nañ waxante il faut que nag fu ñu jot nii. Mm-hmm. boo doon sénégalais. képp kuy sénégalais citoyen nga mm. war nga taxaw nag ba koy ñaan ba si kilifa yi mm. et ne sont pas que politique parce que foog ñu waxante foog ñu waxante li ngay wax ni mooy c'est très choquant côté Léopold Senghor euh, ça veut dire ce n'est pas démb cinq morts tey sept morts a on est on wax aftu mm. mais faut pas faut pas raconter n'importe quoi dama dem liberté euh, rond-point liberté si kaw rond-point bi la ñuy gaare oui c'est-à-dire euh, non mm, mm, mm. dafa am loo xamante ne bu jotee dañ koy wax il est grand temps qu'on se regarde parce que nit yomb naa booba amul lu gën a yomb nit c'est neurobiologique immunité ay affaire yu demee noonu nitee moo jafe nitee moo jafe mm-hmm. nitewuñu da ngay traverser passage kii gaam bi ça veut dire du sax taxaw avant day ñëw taxaw profite di xeex ak yow affaire boobu orange kan mooy kan mooy taxaw feu orange fii ça sa se compte maintenant. Hmm. scooter yi dañuy ñëw do romb di dem gars yi di dowal di fi te ay di log di di gain mais y a quelque chose d'incroyable. nga ñëw fii si pont de pont de stade. boo ñëwee pont stade fekk fa xale yi ñu ngi 15 devant un commissariat commissariat ngi fii commissariat loolu Sénégal am biir Dakar. Hmm. nga dem pont Mariste si suuf gars yi di c'est-à-dire le sens giratoire personne ne respecte tout ça se passe chez nous des voitures qui montent sur un ouais. pont. excuse Charles. Euh, tu, parles de, non-respect mais parfois. agent de agent, agent de circulation obligé. tout à l'heure euh, non kaay ma wax la dox. tout la c'est que dañuy obligé. def ko dans l'autre sens non non mieux. non kaay ma wax la tout à l'heure j'ai filmé ça. dafa am benn oto. benn laguna la. dafa ñëw def nii. y avait deux policiers. mu hmm. romb leen jaar nii. cest dire il y a des choses qui deviennent qui sont inacceptables. Le problème, y a une complicité. parce que hmm. nous Sénégalais on n'aime pas se dire nos vérités. Les gens meurent. ñu hmm. ñëw foofu ku nekk génnee sa mille kii génnee sa mille wane sa bopp. et ainsi de suite mu nekk genre spectacle. bu tous les jours les gens meurent. que je sais que depuis une semaine tu es à fond. Mhm. tu es reporter. maa lay gis sur Facebook tu passes ton temps à dénoncer dénoncer dénoncer avec de la vidéo en plus. mais kaay ma wax la donc tu es à fond. mais kaay ma wax la man dama jógee dama jógee dama jógee Linguère. oto bi ñëw ma foog pour man ay gént la quoi damay gént. Hmm. bu ñuy bu ñuy yuuxu chauffeur bi gaañ oh, le gars dafa ñëw rentre ñëw yàq oto bi. complètement complètement. bon tu te c'est ah, ça mais ça c'est tous les jours. après on vient nous dire oui je suis désolé. alors Bilal Ndiaye Bilal damay damay sa sa qualité bi la fi indi. en attendant nga réagir en tant que citoyen sénégalais par rapport ak li nga fi dégg balaa ñuy jox euh, Djibril mu tontu si li fi jot a jub. Ah, merci d'être venu jërëjëf Khalifa ci liggéey ngeen di dalal fii ci ci TFM xëy na du lii moo tax ma teew fi waaye ginnaaw ñu mhm. ko waa ji waxee fekkee ba ci boole. Mm. def naa ne en tant que citoyen sénégalais war naa ci mën a joxe sama xalaat. Mm, mm. ma yaakaar ni euh, xëy na tey dañu waxtaane mbiri chauffeur si waaye dafa mel ni ah, jàngoro yi gën na gën na metti gën na xóot dama ragal nii. sénégalais bi ci boppam la ñu war a def naa ni soo ko xoolee chauffeur si euh, dañuy mandargal rek la société sénégalaise aujourd'hui def naa ni la question de du civisme dafa nekk ci fànn bu nekk fànn bu ñu xool dañu naan ndax jikko yi deltuñu ginnaaw dafa mel ni e, jaar bu fi nekkoon euh, parce que fi nekkoon dafa mel dafa dellu ginnaaw ma yaakaar ni li ñu war a def mooy mooy waa aftu muy nguur gi ñu jàpp ni waruñu rek ku nekk naan kii moo war a def lii kii moo rafet yi dama yaakaar ni ku nekk am nga ci wàll. nguur gi am na lu mu war a def ndax itam na jàpp ni ah, nguur gi moo sasoo. kaaraange sénégalais yi moo ci war a jiitu te moom war a nekk le premier protecteur de droits des sénégalais ndax ñoom ñoo xëccu ne jox la ñu réew mi ñu téye ko ci anam bu sell kon ñoom am nañ ci wàll woo xam ne war nañ ko mën a dox wala mooy defar tali mooy éclairage public bi mooy euh, ñu appliquer code de la route directeur des transports aériens wax na ko ñoo code de la route dañu ko war a appliquer terrestre on va euh, moo war Hmm. xool ndax ñu ngi koy appliquer mu déet ñan la hmm, hmm. administration bi la police gendarmerie ñoo war a saytu ndax ndax chauffeur si moo xam transport public wala privé yi ndax ñu ngi sàmmonteeg yoon ndax tey jii mën nañu wax nii ku nekk ci tali bi def loo neex ndax ñu ngi teg ci yow euh, euh, sanction yi war damay joxe benn misaal su ngeen demee suñu demee ci réewu tugal yi réewu tubaab yi li ñuy seetlu mooy am na yu bëri yuy xew fii suñu policiers yi di ko def wala suñu gendarme yi di ko def ñoom sañu ñu ko def lu tax gënuñu jikko gënuñu ñu. waaye foofu dafa am la sanction. absolument fii dañuy wóor ni loo ci mënti dal le policiers français ne sont pas plus. Absolument. plus plus intègres plus intègres. mais là-bas il a la sanction. personne n'est au-dessus de fi mu nekk fii Sénégal mën nga fi lu bari nga génn ci ndax am nga ku la ci jàppale am nga sa sëriñ boo xam ni suñu ko tinoo euh, mu jàpp ci bàyyi la wala am mbokk boo xam ne am fu nekk kon li ñu war a def maa ngi guddal wax ji. Hmm. nañu jàpp ne war nañu xoolaat jikko yi. xam na itam. Hmm. Sénégal ci boppam. Hmm. def naa ne la question du civisme problème na. nañ jàpp mbiru bato bi la Joola defoon nañ li fi amoon. yaakaar nañu ne que dix ans plus tard. nit ñi dinañ wax lu mel nii. tey jii surcharge bi ci la gën a bari. ñu ngi lang ci euh, porte euh, porte xaw ma nu ñu ko tuddee. marche pieds yi. suñu xoolee mbiri taalibe yi démb la. def nañ ci opération génne xale yi def anañu xale yi taalibe yi tey lañu ëpp ci biir. waaw mais tout ça c'est de la flûte après. parce que kon damay joxe rek damay dellusiwaat ci ci mbir mi. ñu jàpp ni euh, war nañu gën a xoolaat jikko yi. non non non dañ si ñëwaat c'est que li li li Ndiaye wax léegi li Ndiaye wax léegi daf may. ça fait résonner une phrase de professeur dans ma tête. Mhm. c'est la société qui les sécrète. xalifa. ñooñu ngeen waxoon donc donc gën na xóot. non excuse-moi. xam nga lan mooy dëgg bi. ça veut dire quand on va rester sur cette fumisterie nationale à parler de tout ça là duñu dem fenn. Mm-hmm. c'est-à-dire Sénégal fu mu tollu nii tey. Mm-hmm. mais c'est pas des mesures Charles. non kay ma wax la les mesures. Mm. état bu amul mesure ça n'existe pas. Mm. l'État prend ses mesures. Mm-hmm. teg. point final. moi je veux dire boo nga ñu fay deuxième fois nga fay trois cent mille point final dootoo def ñaari en tapant le portefeuille le mm-hmm. Sénégalais est corrigé. absolument mais je veux dire dafa toll si moment boo xamante ne amul lu gën a mat la fois dernière c'est sept personnes d'une même famille. Mm-hmm. mënuñu moo fi xew keroog. sur mm-hmm, ñu toog Sénégal amul voix buy ne. nan xool lii war na fi taxaw gars yi kaay lañ ñu toog alors on est bon pour tous les pour tout le reste. on est bon jullit. on est bon catholique on est bon tout ça tout ça on fait, on fait du cinéma kopp def loolu il s'agit d'être un citoyen mm. civique on est les derniers de la classe mais attends à qui on, se raconte des parce que parce que mbedd mi parce que mbedd mi mbeddum buur la. parce que loolu loolu la ñuy wax. Ah, parce que mbedd mi mais non attention non non bu ñu saaga ah, non non xam nga notre société. dama lay wax tout le la ne non on a trois choses qu'on n'a pas. Khalifa benn bi mooy conscience ga mhm. conscience ga rek moo la mën a tere yenn yi ñaareel ba mooy éducation dama lire benn affaire que da nga commencer par Facebook vous allez voir comment ça peut faire rire mais comment dramatique mhm. dama lire benn affaire bu ndaw mooy que dafa am benn salle boo xamante ne hôpital la tous les matins salle boobu salle 4 boobu les gens se sont rendu compte képp ku ñu fa teg 7 heures du matin nga décédé gars yi docteur di xool di xool di xool ñoom ñu ñëw ni ni lii c'est pas possible tous les malades meurent à sept heures du matin mais ñoom ñu ñëw un jour ñëw toog di xool ci fenêtre yi eh la la femme bu doon ñëw di nettoyer bu ñëwee day débrancher affaire respiratoire bi charger son Nokia mais le le, le patient meurt. ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que non non ça fait rire mais c'est le drame pour toutes les familles. ça veut dire quoi ça ça fait c'est un court métrage après. qui waaw court métrage la. mais c'est trop métti. est-ce que nous on s'en rend compte état bi. non ils ont parlé de dîner de rap de machin. de de de euh, débranché branché. nga jël benn xale. yóbbu ko école. état bi état bi tabax école am. état bi teg si xaalisam. Hmm. jël ay enseignants jël ay surveillants jël ay tali def na loolu. Hmm. ñu jël xale bi mu teg école. mu nekk projet social. projet familial projet d'un pays. bana car rapide ñëw rey xale bi. l'état son argent la fa du nit ki rek moo dem. c'est-à-dire il faut que ñun ñi wàccaat tuuti. qu'on se mette à réfléchir. très bien très bien merci beaucoup euh, nga réagir <laughs> mais directeur des transports sax wax na lu am solo. loo xamante ne nii xëy na dina leen gën a teg pression yéen structure yi. mooy euh, mbiru euh, kii euh, nu ñu koy waxee détournement d'objectif yi par exemple car boo xamante ni au départ transport moo ko tax jog ñu transformer ko transport de marchandise ñu transformer ko plus transporter ay nit loolu moo jur car rapide un peu si si si li si ëpp. wala am na car bi yoon dañ koy transformer am na ay njëkk dañ koy transformer xëy na ay jamono la woon léegi yéen bi ngeen ñëwee c'était pour. defaraat parc bi mobiliser loolu lépp point boobu xanaa bokk na si ngeen si ngeen rafetlu si leen yéen di gën a teg pression yéen. très bien. boobu mën nga ko mujjeel mais nga réagir. waaw je reviens euh, un peu par rapport ak li Birima wax. Hmm. Euh, je ne suis pas représenter seulement l'AFTU. wax naa la ko léegi. Hmm, hmm. parce que nous en dehors l'AFTU on a un conseil national. boo xam ne ça regroupe tous les transporteurs urbains interurbains ak de marchandises. donc AFTU Dakar Aftu est concerné par 0 pour cent de tous les accidents yi nga xam ne dégg nañ ko fi. Ah, donc Aftu n'est pas concerné par les accidents benn ñaareel ba def ne léegi. ay sax ay apprentis ñoo nekk ci kaari Aftu yi. là désolé bëgg naa mu wax ma yan ligne la am loolu. mais jibi oh, loolu dañ koy gis ci circulation bi. waaw attends c'est vrai man man man j'ai déjà vu parce que on sanctionne par rapport à ça. ñun on a des contrôleurs. yoo xam ne ñu ngi ci réseau Mm. deuxièmement mm. Euh, ma revenir un peu ci les normes ak li nga xam ne moo nekk les infrastructures minimum yi nga xam ne war nañ ko am mm. lu mel ni zone de repos par exemple mooy dem Tamba ñëw ba euh, à moitié de chemin ma am foo xam ne zone de repos la chauffeur bi taxaw noppalu loolu dañ ko def Sénégal

il faut ñu déglu ay air de repos Charles Faye attendez attendez les gars bu defee accident man la yàqal Jibril Jibril ma recentrer tuuti rek am ay ay air de repos xam nañ ko ci autoroute muy fii ak feneen ak feneen te am na ay air de repos am na ci fii waaye li nga wax ni deux heures trois heures tu t'arrêtes Charles écoute-moi bien on n'a pas besoin d'air de repos on va on va s'arrêter gars yi il faut ñu dégloo nag il faut ñu dégloo il faut ñu dégloo il faut ñu dégloo c'est que li ma bëgg a xam mooy lan aire de repos xam nañ ko ci autoroute euh, tous les deux heures par truc gars yi taxaw parce que loolu si autoroute bi am na waaye bu dul loolu loolu si mindset bi madame Fall di faral di wax si la am mooy maanaam kon Charles waaye ok d'accord bon loolu mooy en tant que chauffeur yow yaa war a xam ne boo dawalee deux heures war nga jël un quart d'heure pour demaat mais ça c'est en niveau individuel koy def keneen ak keneen da koy def mais est-ce que ñëpp xam nañ ni boo dawalee deux heures war nga taxaw. moi je parle à un état état c'est moo am rôle régulier état moo am rôle organisé. la Charles wax ni c'est au niveau individuel il faut sensibiliser ñu wax bu taxawal Sénégal. parce que fait partie des mesures de sécurité. Mm-hmm. loolu laa wax ma des aires de repos des aires de repos yoo xam ne. des arrêts obligatoires. ku ko def deful ñu dañ lay jàpp. installé ay radar yoo xam ne oto bu daw plus de parce que loolu kenn mënu surveiller kenn. parce que accident yi li ma wax léegi heure yi muy am moment yi muy am. Ah toujours nit am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay problème mm. donc loolu dama ko exhorté di ci wax état ci ne loolu ci ay mesures de sécurité la. Mm. pour ñu am ay aires de repos yoo xam ne dañ koy instauré ci longue distance yi. Mm-hmm. loolu benn la ñaareel bi mooy changement parc bi. waaye tey. am ngeen pression ñun changement de parc bi. Mm. état du Sénégal moo ko war a organiser encadrer les ñu indi seen astuut ñu mën ko def. loolu ko ci 10 mesures mais parce que ça c'est déjà réglé. c'est pas encore réglé. c'est pas encore réglé le processus est en cours non. processus bi processus renouvellement de parc au niveau urbain. Ouais. Ça à Dakar. Ouais. Mais je parle de l'interurbain. Ah. Où il y a des accidents. pas. Ah. Mais hmm. fait l'école. Hmm. bi ma paree ma jàng transport di ko pratiquer. donc amul ku ma ci mën a wax loo xam ne xamuma ko. Hmm. c'est mon métier. donc yooyu dafa nekk ay mesures préalables yoo xam ne moo jiitu. 10 mesures laa bëgg wax. beneen bi ma dellusi ci li ñuy wax ci. Euh, voilà waxoon naa ci élargissement yi waxoon naa wax naa ci zone de bi hmm. ak changement de parc bi donc yooyu mooy mesures nga xam ne hmm. état war na ci taxaw moo gën li mesures yi wul dara hmm. parce que bu ko defee sur le plan urbain ci de parc bi parce que yéen ko amee waa AFTU yéen a koy encadré je veux dire fan xaali xaalifa ce que je t'ai dama ne AFTU ça se limite à Dakar je sais bien waaw je changement de parc interurbain amagul très bien amagul woo les le nga xam ne ñi am seen oto ñu daw ci àll bi ñu oo leen ñu taxaw ci loolu organiser wu pour def ko. Hmm. comme ni ko Mali di defee Mali tey. fii Sénégal bis yi fi nekk ay bis malien la seen état du Sénégal seen état moo leen di jàppale transporteur malien di di ci def loo xam ne euh, lu am solo la. mais y' solution transitoire bi mooy xëy na Dakar dem dikk bi def léegi. Euh, non ça c' est c' est loolu benn affaire la loolu benn affaire la woon rek loolu benn affaire la. tey je sais que euh, ñun en tant que professionnel. ñun rafetlu wuñu loolu. Ah ce n'est pas la meilleure solution. Ah, ah, très bien très bien Khalifa hmm. kii li may wax fii. Hmm. wax du da naan ko lu weex laa ko weex. bërki démb ba matul deux jours. Mm-hmm. sama chauffeur day génn ci Lamine Gueye bi. oui day wax ne gisu ko quoi mbëkk oto bi. ñu taxaw nañuy xaar constat kaaru aftu bi egsi kii bi quoi ci biir Dakar. bi mu egsee chauffeur bi quoi yebul sax na ah, yebul nit. mu ni waaye yéen oto bi yàqu nga ne xaar constat. mais kon waa ji arrière gën koo mbëkk ndax moom lu mu constat. ah oui mais oui publiquement xanaa lan. oui xam nga nee nga bokkul ak accident yi. bis bu ngeen xëyee balaa ngoon yàq nga oto jàmbur. Euh, Birima non dama ne dama ne li bëgguma nga sorey si loolu afti dañ ci amoon yaakaar. bëgguma nga sorey man bokk naa ci nga xam ne damaa gëm projet ah, boobu. may ma may ma non non non da ngay dem te loolu dañ dañ loolu war nañ ko saraat si circulation bi. <coughs> tey jii ba mbëkkee sama oto. Uh-huh. man ma woo constat. maay fay man maay fay. xam nga c'est grave. donc tamit benn dysfonctionnement la boo xamante ne war nañu ko. c'est grave loolu moo tax bëggoon lu coupé. waaw dama ne xam nga xalifa. oui afti du ñu respecté feuille. Hmm. demal ci ñu xool li ñu fiy eh, loolu leer la leer nañu demal ci Blaise Diagne ñu xool afti def du ñu ref lu leen neex la dama ne aftu kaar yi bi ñu ko créé fi Sénégal. et puis de li mu wax dëgg la genn wàllu aftu yi day xool gi mënatuñoo daw dañoo màggat.

pour am jàmm loolu da koy loolu indi woon idée aftu bi dañu ko fàtte donc dañ ko pour nekkoon ci Dakar anarchie bi mm. amoon dañ mm-hmm. transport bi ñu ko ay responsable toog jox ay carte subventionné leen jox leen pour am ay oto yu baax dawal dawal bu baax ñu surveiller leen loolu la tax mais dama wax ni loolu yéen yéen déjà alternative boobu ñu jëloon hmm. yéen a koy forcer dès le départ très bien bi li nga ci wax ñun li ñu def ci résultat tey on transporte plus de soixante-dix mille personnes par jour waxuñu loolu yéen fi ne may ma déglu rek li nga xam moo ne wax dagg-dagg hmm. maanaam yàkkale hmm. jël nañ ko fi tey mën nga jógee rapidement jaxaay ñëw ñëw plateau dinañ def benn spécial aftu donc ah. aftu a fait des efforts dinañ def benn spécial aftu mais dama ne lii tey émission tey bi c'est global Jibril bul topp si terrain bi terrain boobu dinañ def spécial aftu <laughs> en fait pour man vraiment euh, jël débat bi wekk ko ci ay aftu ay affaire yooyu c'est pas xool li nga xam ne moom moo war a xool fois de plus dafa am loo xam ne pour man responsabilité état ak responsabilité businessman yi nga xam ne ay ñoom ñoo moom voiture de transport yi ça y loolu dañ ko war a dañ ci war a taxaw xool ko état moo war a protéger nit ñi ñi leen di yëpp ñoo leen war protégé amul kenn ku fi jóge fii. 80 hmm. pour cent des gens qui tra qui qui euh, voyage jël oto waxuma la condition de voyage yi ñuy nekkee loolu foofu la foofu nga lu ñu faussé affaire bi au départ. Hmm. c'est-à-dire que di nga gis oto oto dafa am lu mu àttan ak lu mu àttanu. Hmm. cest à rigueur bi. c'est pour man je ne suis pas sûr que euh, transporteur en commun yi beneen façon sénégalais lañu bu ute ak man ak sa morom sénégalais yi benn lañu. ci benn côté il faut pas aussi que ñu ñu stigmatiser leen teg leen ne leen ne leen ñoom ñoo am benn. kii benn benn sécrétion bi. voilà voilà sécrétion bi léegi c'est ça. voilà voilà ci ci non parce que pour man. Hmm. benn bi rek la. loolu c'est un tra c'est un c'est un débat de fond. mais dama ne aujourd'hui soo delloo delloosee affaire bi. Hmm. moom laa def. oto yi nga xam ne ñoom ñooy parce que accident yi ci voyage la gën a bëri. boo demoon taxaw ci euh, di tukki nii di dem Thiès wala ngay dem Kaolack wala dara. Mm, mm. oto yoo ci romb sur dix oto neuf ya dañoo warul a daw say bu balaa ngay régler problème da nga koy régler à la base. parce que xam nga. Euh, dégg c'est dans les mesures. non non non xali non xali xalifa defal ndànk xam nga. Mm. moom laa leen xam nga mesure yaakaar rek. déedéet application bi xalifa xam nga mesure yi dégg naa. ah xanaa nguur dégg naa directeur bi. mu ne d'ici fin d' année bi. Mhm. war nañ am nañ yaakaar ni dinañ appliquer. kii ma ne leen c' est un faux baax xam nga lu tax. pour appliquer euh, mesures yi. mënul mhm. nekk nii. pourquoi parce que moom laa lay wax ni pour pourcentage oto yi nga xam ne ñoom ñooy daw. Ah, te warunoo daw. moo bëri c'est pas quelque chose qui se règle en en une année que il faut pas ñu jéem a nax nit ñi ça hmm. c'est c'est un projet oui. aujourd'hui hmm. aujourd'hui li am solo ba am solo moom mooy que bu nit moom laa lay wax ni bu nit moomee mbir di ci yëpp ay nit nañ leen protéger nit ñi nga xam ne amuñu xaalis amuñu assez de moyens kuy jóge Dakar di dem Kaolack nga nga am rigueur boo xam ne fii pompier wala xaw ma nu mu tudd boo maraîcher mhm. ci ci non xalifa mhm. bi lay li may wax ni c'est important xam nga tax am importance parce que boo gisee ñoo non non soo gisee grève yi seen syndicat yi affaire bi du problème mu mhm. moom laa lay wax ni gis nga boo demoon boo maraîcher nga dem taxaw rek nga gis am na yenn oto yoo xam ne mu yëpp lu mat presque mais nga gis na ma yàlla baal c'est pas pour ñoo mag mais non non xam nga xalifa. ñoo la mag xalifa. dëgg la kay nan waxante dëgg. ça veut dire non non non non attends rek attends. xam nga pour tax mënuñoo commencer. tu peux pas donner une visite visite technique ah une voiture qui a 40 ans. et tu me dis que tu veux régler le problème. Absolument. xam nga lan fan laa lay gëmee. xam nga fan laa lay gëmee. Mm. nga dem taxaw ne bépp oto bu am plus de tant d'années unilatéralement à partir d'aujourd'hui ça ne part pas nga booy régler problème. da koy régler wala nga bañ ko régler na bàyyi defar affaire ba mu nice mais sur le fond. oui la oto yi waroon a daw. da taxaw ne leen dawatuñu daw. li may li li ma bëggoon di inspiré bala ma ñëw si li ma bëggoon di inspiré bala ma bala ma ñëw ci li muy wax ci li muy wax. waaw ah, waaw non non déggoo ngeen Ndiaye. jibi honnêtement. si mm. li muy wax. oui si lu gën a bëri. moi je suis parfaitement d'accord moom laa la woon Khalifa. tu ne peux pas.

Birima dama doon ah. dama doon terminer rek. waaw terminer dama doon jeexal. parce que sa loxo bi dafay. Ah, <laughs> tey door bi feeñ na de pour une fois door bi feeñ na. non li ma bëgg a wax moom c'est-à-dire que. nañ nañ leen taxaw. Uh-huh. c'est quoi. une hmm. ah professeur yi njëkk a xaabaabal. merci prof njëkk a xaabaabal ci yaa ma inspiré. non dama ne lan mooy non lan ban rigueur. Uh-huh. la war a am une voiture individuelle boo xam ne man maa ko moom di ko dawal sama bopp à la maa koy dawalal sama bopp maa ko moom. sama famille lay transporté samay proche samay collaborateur samay dara. Mhm. une voiture yuy jël doomu jàmbur. yoo xam ne doomu jàmbur yi lañu am a kës néew dañ ciy dompat di ko fay. Mhm. oto boobu rigueur bi nga war a teg ci oto boobu dans tous les pays du monde. rigueur bi ngay teg ci voiture en euh, de transport doo ko teg sax ci oto normal loolu yoon te loolu foofu la ñu faussé affaire bi au départ tant que réglé wuñu loolu on a beau faire des plans d'urgence et tout ça ça ne sert absolument à rien ah, du tout une yokk ne xam nga xam nga fa la danger bi nekk mm-hmm. xam nga naan nga mën a jëlee oto yi daw ci ville bi nga xam ne duñ ne daw soo ba ngoon duñ daw quatre-vingts à l'heure nga ne koy changé nga ne koy changé. nga bàyyi oto yi jógee dëkk dëkk. yi jógee Ndar jógee Kaolack demal gaaru ci garage. c'est a ndaw moo la mag de cinq ans ou six ans. réew mi amul kaas. mais mais au dama au moins bu ñuy. bu mais nañ njëkkee oto yi nga xam ñoo dox dëkk dëkk. mooy problème sept place amatu fi boo duggee ku dégg sept place sa bakkan ci xol. professeur jël kàddu gi mais ñi ñii dañu war a xam ne ñoom ñett ñii hmm. dañu war a xam ne li ñuy wax nii mu ngi ci mesure yi hmm. xanaa kon déedéet ci mesure nekkul li may ko wax il a dit li may balaa yu bees dafa appliqué nekk déjà li ma wax nii déjà uh-huh. bu ñu ko defee di jiifu gis grève chauffeur rek transporteur bi gën a rëy ci histoire Sénégal <laughs> boobu mooy régler problème bi. waaw euh, euh, pourtant li nga wax xalif dëgg la. waa ji wax na ko dans le chapelet de mesures. maintenant on est on est d'accord avec vous que les mm-hmm. meilleures lois. Mm-hmm. ne par la qualité des hommes chargés de les appliquer. moom leer na affaire bu du affaire u xayma ci ay kayit nii rek. bu doon loi Sénégal ñoo si gën a xarañ ñoo ëpp ay loi ñoo dàq ay loi ci monde bi. mais damay dellu si booba d'accord naa parc automobile et tout. Mm-hmm. damay dellu si waat sur l'humain. parc automobile boo ko renouvelé woon jox gaa yi oto yu bees tàq te sénégalais deful réforme de l'entendement je suis pas d'accord ak moom ah bu la libératoire amul daal d'accord mais non non mais laisse la finir mais laisse la finir waaw waaw may jox mais bàyyi ko mu daaneel bàyyi ko mu daaneel Boubacar je dis ba ma pare birima eh, man xam mooy menacé gis nga birima boo jëloon oto yi gën a baax ci monde bi nekk dans les meilleures normes tabax ay tali standard waa ji door ay ñaakoyam <laughs> ne dama war a dem fii rapidement dóor waar dem waat je dois faire tant de nombre de rotation hmm. surtout surtout ay màggal ay gàmmu tu n'as réglé aucun problème donc le parc automobile il est vétuste d'accord naa waaye ñooñu dama ne kenn du leen xas parce que ñun la ñu. nee naa la mu amee ay chauffeurs yoo xam ne naka sa dul noonu. am na ay chauffeurs yoo xam ne ba léegi ak ay transporteurs ñu ngi leen di woy seen i jaloore. bu ma neexee ma woyal la ñoo xam ne sax. nañ doon PPP ñun ba ñuy ndaw. donc ku nekk xam na leen ci xarañteef ak nañu maîtriser seen liggéey. Mm. waaye de plus en plus. Mm. la am ca njàngale ma am ca paj ma am ca feneen dafa gën a fës xam nga bu moo naan stigma stigmatisé. kenn stigmatisé wu leen mais ñoom ñoo stigmatisé seen bopp. bu fekkee Sénégal fee nekk bu fekkee Sénégal daf fee nekk di battre ay record ci nombre de victimes ci kaw tali bi. waaw ñu ne duñu ko wax. non ren si raw. waaw ñu ne oto yi ñoo bon ak nangam ñoo bon ak nangam ñoo bon. mais li ngeen wax non non parce que d' bi na ñoo. xam ne ko dàq joxoon musiba naar laay du fi jóg. mais du ngeen di gis combien de fois. ma ñëw ba jege Birima mu taxaw pep pep waaw professeur waaw Mégane mu demee nangam nangam bala ñooy gestu kenn ñëw traverse taal sa Ibaar day taal dix mois ça c'est proprement sénégalais donc loolu du problème mu oto bu màgget hmm. problème mu nit la réforme de l'entendement du sénégalais dëgg la Charles xam nga Charles nga may nga may ma yaa Alassane qui réagit Alassane Samba Diop directeur de RFM oui Alassane Khalifa maa ngi lay nuyu ça va bien Alassane ngeen baal ma xam nag euh, non c'est un plaisir c'est un plaisir Alassane c'est très intéressant oui euh, yaakaar naa ne fii professeur Songe wax loolu moo am hmm. réew mi fépp a feebar Oui. C'est tous les secteurs du pays qui sont malades. Oui. Nous sommes dans un pays malade. chauffeur yi bu rey nit ñi dafa graaw. Hmm. sa yaram day daw. oto yi oto yi am quarante ans cinquante ans ñu ko indi indi fabiyem bu doon dafa renul defatul camion yooyu amatul. oui c'est-à-dire transport amatul ci àdduna. musée hmm. la. dañuy indi oto yi defar ay wersaay oto bi bu mbëkkee nit ay barigo lañ koy defaree muy rey nit ñi. Mm-hmm. militaire kii policiers yi oto yi ñoo leen romb di sur di surchargé du leen arrêté. Mm-hmm. dimanche ba lay passé l'année dernière douze morts ci boori eh, ci boori kii nga xamante ne moom mooy sapeur pompier les garage pompier. pourtant oto boobu bu jógee si banlieue bi dafa yëpp ay nit ba si porte bagage bi fees dafa romb ay policiers ñoom foofu kenn arrêté wu leen. oui le pays qui est malade tous les secteurs de ce pays sont est malade. mais hmm. nom de Dieu on est malade dans un pays malade c'est tout. Ah, voilà il faut il faut qu'on se l'avoue. mais oui mais il faut que ñu toog def hmm. lépp réew mi xam lan la suñu jëm. tous hmm. les secteurs de ce pays sont malades. Mm-hmm. chauffeur mënuñu yor mënoo yeewu jànguloo mënoo liir liir liir tableau mënoo liir dara ci français dañuy bindee code de la route nga yeewu nekkoon laveur de voiture yeewu ñu jox la oto nga nekk ci bët daw dawal ko saret bi ak chauffeur ñu nekk ci mbedd bi le nom de Dieu Alassane Alassane merci merci c'est un plaisir mais surtout ala surtout Alassane c'est un coup de gueule oui oui tout à fait j'ai bien euh. compris j'ai bien compris et surtout maa ngi lay maa ngi lay jaale aussi euh, Laurent Sadou Hein? Merci beaucoup, merci hein, Je Bama, pense oui. que ouais, ouais, c'est une ah grande voix ouais. qui s'est qui Une grande voix choses. Beaucoup ah, de choses. Euh, nous, on euh, pour euh, justement dire qu'il est, Afrique Midi. séduit par le travail Très bien. Merci. Très bien. Jërëjëf Alassane. Eh li Alassane jeexale moom laay wax léegi nii balaa may jox beneen kàddu parce que am na keneen ku ñu bëgg a woo mais waxtu moom moo ñu dab. dafa am benn panneau boo xam ni dafa rond ah bi mu dafa rond ba pare am ñaar bi am benn croix bu bleu. Mhm. dafa xam nga xam boobu mooy lan. Mhm. mooy kenn waru fee stationné. Mhm. kenn waru fee arrêté. on est d'accord. booy génn tongoor panneau boobu moo fa nekk. fa la ñëpp di jëlee oto. mais absolument. loolu moo xew si réew mi. xalifa xam nga xalifa xam nga lan mooy suñu cat. Ah, ñëpp am ñi fay taxaw permis xalifa xam nga lan mooy suñu cat quand on veut rompre avec des pratiques oui. politiquement on s'engage à faire au plus un mandat mm-hmm. parce que c'est des mesures impopulaires qui vont sauver ce pays là dëgg dañ koy wax bu jotee. wax si c'est important. bu dëgg bu jotee dañ koy wax mesure yoo xamante ne nii mën na leen see sax mere dafa am loo xamante ne da nga si mere mais di changer di nga dëkk bi. tigi da nga koy sauver. Mhm. Sénégal fa la tollu tey. Mhm. dañu toll si moment boo xamante ne lu may sobee moo ma gën a jar. moo ma ñoom doole di syndicat dama la ne kay ma wax la. il a xam nga dëgg wax la dara afti bi personnes lay transporter par jour. Hmm. ma multiplier ko par mu jox ma sept millions par jour. ma hmm. multiplier ko par trois cent soixante mais déglu ma trois ma xool xaalis boobu mu bëgg a dawal oto bi pendant quinze ans après tu viens tu mais non ça veut dire attends 70 000 par jour j'avais envie de lui dire dans quelles conditions entassées sans aucun respect des normes sécuritaires. non dama la wax non c'est-à-dire dans tous les transports urbains du monde. y a des ah, ah, ah bon non ah bon aller à l'extérieur. non non mais ah, justement. justement justement dans les deux points il y a tous les sujets dans les. non non surcharge justement mais non non mais. surcharge surcharge non mais attendez non mais non mais. non mais eh, Khalifa. li Djibi wax li Djibi wax li Djibi wax li Djibi wax neexul a dindi. mais nous sommes en revanche en revanche. même même rek. non mais attends li Djibi wax non non. non non non mais Charles mais bu ma la jox kàddu doo wax. li jë wax li jëril wax nii neexul dindi. boo foo dem si àdduna bi les heures de pointe day am surcharge en revanche réew ya muy amee surcharge boo demee ci réew tugal ya heure de pointe yooyu. dañu fay teg ay nit ñuy réguler nit ñi. bu ram bi feesee. kenn dootu yéeg pensé que adduna bi. fii boo téeri ndoo yéeg sama saaga la. wala mu door il faut mooy li Alassane wax léegi. non il faut arrêter ça. il faut wax il Hmm. ñun quand ba ñuy nekk ndaw di dund crise u Sotrac di dund crise u Sotrac hmm. dañ doon gis ay images yoo xamante ne surréaliste car bi buy ñëw toutes les deux heures lay ñëw donc ni ñi dañuy tëb ñi di dugg par fenêtre bi ñi di dugg par fenêtre pourquoi faut-il qu'aujourd'hui quand je vais dans un pays hmm. car bi day ñëw taxaw fu ma taxaw hmm. aw ma stress buntu gi ubbi ma dugg tranquillement cela veut dire hmm. quoi cela veut dire qu'il faut qu'on aille dans ce sens ce n'est pas avec cette réflexion de dire que j'entasse les comme des sardines <laughs> qui vont mourir sur les rues comme des malfaiteurs on va terminer là-dessus euh, am na benn am na benn téléspectateur bu bëgg a wax euh, Alioune Alioune Diallo expert en com c'est ça en communication Alioune Alioune Diallo bon dañu woon benn Alioune Diallo. Aliou bëgg naa réagir benn point bu professeur wax. muy sëñ bi alors Alioune Alioune yaa may dégg. benn point bu wax léegi. oui ah. allo bonsoir Alioune voilà bonsoir donc dama lay bàyyi nga réagir par rapport ak loo bëgg a indi comme contribution peut-être si débat bi. d'accord merci beaucoup Khalifa ma euh, merci beaucoup Khalifa le, le retour n'est pas trop bon quand même mais xam nga day may dégg. waaw maa lay dégg bu baax. excellent maay tudd Aliou Diallo expert en communication consultant Sey Diarra SARL. très bien. maa ngi rafetlu émission bi di leen di féliciter di leen di encourager je vous suis partout là où je suis actuellement. alors euh, man y début des débuts de solution yoo xam ne dafa dafa commencer xew au Sénégal. <coughs> les accidents c'est partout comme ay avions ñooy daje ay euh, euh, autorail ñooy daje. accident c'est partout. Mm-hmm. c'est je pense que c'est dans la nature de l'homme mm-hmm. début de solution yi c'est quoi c'est-à-dire il va falloir que les Sénégalaises et les Sénégalais soient conscients sur un point. oui euh, euh, j'accepte très bien que ñu naan wuy l'être humain wuy oto euh, mais aujourd'hui si yaa bu dee am na xam-xam bu ëpp bu dee am na mën-mën bu ëpp bu dee am na alal bu ëpp nañ ko déverser ci population bi hmm. c'est-à-dire aujourd'hui dafa am benn convention boo xam ne benn sénégalais daf ko signé avec la fédération des conducteurs de moto Jakarta du Sénégal hmm. mu leen di jox casque di di jox gilet di leen di jox assurance hmm. on l'a fait à Thiès c'est-à-dire ville pilote ñuy sillonner partout au Sénégal. Oui. c'est-à-dire yooyu au moins accident bu amee daf koy atténuer j'ai bien apprécié la l'intervention de de de Birame Ndiaye. Mm. effectivement euh, suñu accident yi dafay des fois day jéggi dayoo. aujourd'hui damay joxe benn exemple rek bus Dakar dem dikk du mus a daw oto bi tëjuwut euh, buntu yi tëjuwul. par preuve booy wàcc kanam ngay wàccee. cest à pour man les débuts de solution c'est quoi. ñi xam transport ñu jox leen transport ñu mën ko doxal. très bien aujourd'hui s'il y a yoo xam ne dañuy dañuy dañuy def lu tuuf di Sénégal di jox. condu waay merci beaucoup ya am na ñu bari ya bari ñu nekk se ligne bi bëgg participer mais malheureusement waxtu yi daf ñu dab euh, on va juste prendre euh, le ministre <laughs> Thierno Lo ancien ministre euh, balaa ñuy balaa ñuy dem donc mais du coup problème bi je pense que tënk tënk ngeen ko. yàq nañu koy symboliser waaw non non non. nga réagir après nga tëj. xam nga dañuy ñëw loolu dëgg xam nga booy def faute. sa doom sax buy def faute. te du am ah, gisul boo ko wóor après kenn du ko corriger. c'est vrai. day def lu ko neex. lu ko neex lay def. sanction. ñi war a ñi war a xam nga yëf yi kenn daa ñëw wax ba ci la ñaan courage la xamoon la. Ah, la ca biir lañ mënul wax. Ah, ñu ngi koy gaañ ñu ngi koy wax sëñ bi ah, ba des mm. mooy. Mm. sévir dañu war a xalaat suñu bopp. dëgg la. nit boo nekkee om de tenue nga taxaw ci tëli. da nga xam ne yow sauvé doomu aadama moo tax nga taxaw fi. waay da nga war a xam ni tax nga taxaw fi li tax nga taxaw fi. très bien par exemple man bu ma police rombee. Mm-hmm. ma respecté ma wax ma sëgg. Mm-hmm. du jëmmam laa ragal. tigi jëmmam laa jox cër. tigi tenue bi mu sol jox laa jox tigi tigi kon ndem man mi citoyen maa respecté tenue boobu. moom mi ko sol ma ko war a gën a respecté. tigi beneen bi tegu. beneen bi tegu mooy. Mm. chauffeur bi da ko war a le xam nga boo gisee chauffeur fa kii kii waxee chauffeur français. Mm. wala états-unis gën ñoo jub mais dañoo leer ne boo defee faute. sa poche dina dem. dëgg la kay mais excusez-moi. mais fi mu la leer ne bu dee faute mu ngi fenn de te couper salaamaaleykum euh, monsieur le ministre salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam Khalifa. waay Thierno euh, salaamaaleykum Thierno Lo donc ñu ngi lay déglu ci sa réaction mm-hmm. waaw euh, dama woote pour participer ci émission bi. Mm, mm, mm. parce que da ngeen di poser ay questions yoo xam ni qui sont d'importance. mais gis nga li ngeen toog foofu noonu. yéen vous posez déjà un petit Sénégal. mooy dénoncer wax rek. te les véritables solutions xam ngeen lan la. Sénégal dañuy voté ay textes duñ ko appliquer. dañuy voté ay textes duñ ko appliquer. waaw Sénégal amul sanction. parce que j'ai entendu le professeur di wax sécrétion. Hmm. sécrétion boobu mu wax naan le du espèce à part su génnee fii dem France. Hmm. dem Italie du lekk banaana sànni ko ci suuf. déedéet. du dawal oto di du du du du brûler feu. tigi du doubler fu mu war du doubler. Hmm. parce que xam ne foofu y a la sanction. walaay walaay. xoolal Sénégal li fi xew. kenn dafa tu ay jël permis ko yóbbu commission. Sénégal da ngeen di gis taxi jaune noir yi ngeen di daw yi ngeen di gis muy daw du loi moo ko tëraloon. Mhm. bala ngaa dawal taxi da nga daan am foo jaar xam ville bi respecté ay normes ka ko nekk un chauffeur de taxi. Mhm. pourquoi ils ont supprimé les compteurs de taxi. les compteurs ñëpp nekk léegi ay oto yuy daw. Mhm. amatuñu compteur amatuñu dara pour la neex dawal fu la neex jaar. laajal sama jeune frère boobu nekk foofu est-ce que y une loi bu supprimer l'obligation ñu respecter benn njëriñ des yéen a gën a xam ni gars yi oto yi di daw dañuy romb ay policier amuñu visite technique ñu jël ay perméable yi def ci walay walay walay di def naan romb policier j'ai je disais que au Sénégal booy xool les éléments de corruption sont visibles hmm. foo ko dugg ci réew mi mooy nga xool oto yu daf carton. daf ci kii mu romb police di daw. waay waay dañ boo ko arrêté mu yor technique. Hmm. il faut que yoo xamante ne bu bu bu pare bi sax sañoo daw. merci ah, merci beaucoup monsieur le ministre. non il a été ministre. ça attention moi je. il a été ministre mais on n'applique pas les textes keroog bi ngeen doon wax ci affaire environnement bi. waaw yéen yéen a gis code de l'environnement mi mais kenn du ko appliqué. très bien très bien merci merci beaucoup merci merci si contribution bi jërëjëf. alors dañu la bàyyi nga nga nga parce que ñu ngi waaj a jeexal. léegi mesures yi. gars jël nañu ay mesures li ngeen fi dénoncé yii. am na lu ci bari ñu teg ci këram. teg benn tali ci ci tali bi teg benn tànk ci territoire bi. xam nga lu ko waral. Mm-hmm. y un mauvais aménagement du territoire doo gis bu ñuy def euh, lotissement ñu ne euh, kër. waaw ñu ne marché ñu ne hôpital kenn du wax parking pour garage pour. waay waay kenn du ko def. waay on le fait pas au Sénégal. waay yi bi ma ba je parle en tant que professionnel. di wax ne yooyu dafa dafa manqué ci dëkk bi. waaye xaalis bu ko may mu dem kat. waa des fois moom mooy aménagement ba pare moom muy gën a yàq aménagement bi ñoo gaaree. amul amul arrêt bu ñu sóoraale ko. non c'est que xam nga xam nga Ndiaye Ndiaye Ndiaye lépp lépp rafet xam nga xam nga vous vous vous y contribuez Ndiaye. kan ma ko def loolu euh, ah. Ndiaye Ndiaye Ndiaye excusez-moi prof prof excusez-moi. dëgg leen ma c'est l'État ça c'est ngeen baal ma rek. ah état moo wax ñu taxaw ci kaw tali ñu def tali ay garage moo wax aménagement Ndiaye je vais vous arrêter pour ñu taxaw prof pour pour pour affaire bi pour affaire bi leer léegi euh, contribution bi ngeen siy contribuer mooy bu ñu leen waxee ne jël leen ligne sàngam te amul bërëb bu ñu war a dal ngeen ne préalable la ñuy xaar balaa ñuy tàmbali liñ sàngam xëy na loolu moo doon doon solution bi. mais les populations vont souffrir pour ça parce que si on fait ça. eh ben donc euh, ceux qui. xam nga débat bu yàq débat bi débat bi non débat bi jeexul mais waxtu wee jeex. en fait maa ngi door a dégg. mais Jibril il faut que nga ñëwaat. non non non non mais attends bul daw bul daw wax jë. Jibril lu mu fi wax dem teg ko fenn ah. Mm. Jibril il sept soixante dix mille personnes di lekk xaalis ça veut dire le parc automobile je suis désolé vous êtes du privé vous le changez vous avez dix ans pour le changer a jibril da ngay ñëwaat changer jibril jibril xool bu dites à vos chauffeurs bu ñu dawalee deux heures trois heures de temps ñu taxaw je reviendrai da nga ñëwaat parce que vous vous arrêtez pas vous ne vous mettez pas sur nos sur nos nous c'est nous contribuables les collectivités l'état doit la compensation non monsieur Ndiaye daal n'existe pas dañ ko defar Dakar dik defaluñu ko très bien merci rek ci ci bu noo point xool mais merci alors deuxième deuxième ci weeru avril atum 2017 adduna bi yëpp dañuy màggal euh, li nga xam ni moom mooy wala dañuy euh, taxaw ci autisme muy benn xeetu bëgguma ko sax tuddee feebar parce que euh, bon après dañ ko gën expliquer mais ça me gêne un peu de dire que l'autisme est une maladie ça me gêne un peu mais xëy na dinañ ma si gën a leeral leneen li mooy Sénégal fii ñoom dañ ko bëgg a def ci samedi ji maanaam ëllëg lañ ko bëgg a def parce que dimanche bi ak ni muy xat ak euh, noppal beek yooyu voilà trouble du comportement voilà merci professeur moo ma gënal euh, ñu koy tuddee pathologie léegi euh, COPEX mooy kuréel goo xamante ne nii moom moo yittewoo lépp lu jëm ci wàllu woowu rawatina ci xale yi ndax xale yooyu nga xamante ne dañuy juddu am ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu euh, day tax du ñu mën a jàng ci école yi nga xam ni fi la ñëpp di jànge du ñu mën a euh, nekk ci société bi ni ki ni fi xale normal di nekkee te buñu leen seetaanee bu ñu amul encadrement bu ñu tumurankee dafay feeñ ci seen ëllëg te ñaare sax réew mi lu si bari dañ leen di faral di nëbb loolu mooy solo teewaayu Bilal Ndiaye di euh, vice président bu association COPEX bi kon Bilal resalaamaaleykum ah donc euh, bëgg naa nga tënkal ñu autisme pour déjà mu parce que dafay bees suñu bari suñuy seetaan mooy lan. ah jërëjëf euh, Khalifa kon maa ngi lay euh, gërëm ci li ñuy TFM di di dalal fii ni ma ko waxoon sànq duma ah, du ma spécialiste nag autisme ndax sama xam-xam màccu ci loolu waaye damay wéy jur maanaam dama am doom joo xam ni ku góor la autiste la moo tax ma gën a am pas-pas ci gëstu mbir moomu. Mhm. gën xam lan la ngeen naka lay mën a jàppale sama doom. Mhm. jàppale leen xale yi nga xam ni ci biir kuréel bi euh, soxla nañu ku leen dimbali. ba mujj ci am expertise. <laughs> macha allah <laughs> alhamdulilah xam nga lu la lu la euh, nga di ci gëstu. da nga mhm. dem ba bu di ci wax lu bari. waaye itam nañ jàpp ne am na ñeneen ñoo xam ni. xëy na ñoom ñoo ëpp xam-xam ci mbir moomu. dëgg la waaye ginnaaw laa. Euh, bàyyi naa sama xel ci yenn mbir yi. Euh, autisme dafa nekk euh, xeetu wax na ko trouble envahissant du développement mu nekk euh, xeetu laago man lañ ko tuddee. voilà boo xam ne dafay jàpp xelu xale bi. Mhm. wute na ak tri trisomie 21 bi nga xam ni. est-ce que du mëtëdi plutôt que laago la. Euh, waaw c'est que c'est le mot qui me gêne en fait. Euh, loolu loolu lépp mën mën nañ ci dellusiwaat. mais c'est un peu ça. c'est ça en réalité dañuy jàpp ne ay xale yoo xam ne dañoo wuute ak xale yi nga xam ne ñoom la ñuy faral di gis. waay mhm. wuute différent wuute ils mhm. sont différents. ils pas des fous. mais ils sont différents. ca dañu war a nangu ñu xale yooyu wute nañu ca du ñu mel mukk ni yeneen xale yi. tigi ah mu nekk euh, mbir moo xam ni comme ni ma ko waxoon wute na ak trisomie à 21 nga xam mm-hmm. ni. soo xoolee xale bi. ci xar kanamam. Mm-hmm. da nga koy gis moo xam bëti ni ñu bindoo moo xam xar kanamam. Mm-hmm. da nga koy ràññee. autisme dafa nekk loo xam ni mën nga ko bañ a mën na bañ a am li naan stigmate maanaam mm. mën na bañ a feeñ ci kanam xale bi euh, doo ko gis doo ko seet lu dul mu mu jëf trouble du comportement moo xam yëngu na wala dox na wala wax na wala jëf na loolu moo lay may nga xam ne kat xale bi wuute na ak yeneen xale yi hmm. te dafay soxla ñu koy moo tax ñu am kuréel boo xam ne ko tuddee COPEX collectif de <coughs> des parents ami des enfants de kër xale yi nekk benn unité hmm. de pédopsychiatrie boo xam ne mu ngi ci biir hôpital Fann kuréel hmm. googu dañuy jàppale euh, ñaari mbir moo na tax a jóg mooy fexe ba euh, jur yi am yenn tegtal yi ngir mën a gunge seeni i doom. Mhm. beneen bi itam ñu mën a jàppale euh, euh, unité boobu nekk ci biir Fann ngir yokk ay capacité mu nekk mbir moo xam ni li euh, ma ko waxee rek mooy autisme ñu ngi ciy gëstu lu bari. Euh, ginnaaw suba ni ñu koy waxee mooy fête internationale de de l'autisme dina doon ñettee leen boo xam ni réewu Sénégal dina ko dina ko dina ko ci am ay manifestation hmm. ñu jàpp ni euh, autisme dafa nekk loo xam ne xëy na ñu ngi koy doog a ñun commencé di seetlu waaye hmm. ci réewu toog bi rawatina soo hmm. xamee ay France Belgique notamment aux États-Unis ñoo américain maanaam anglo saction yi. Hmm. ñoo gën a ñoo njëkk a ràññee. xeetu xeetu mbir moomu. moo tax euh, ñu naan ils différent ndax xale bi xëy na de mën na ay prédisposition yoo xam ne dina mën loo xam ni. Hmm. waru ko mën. Hmm. waaye mu mën a di loo xam ni. war na ko mën na am. 24 ans am âge mentalu 2 ans. wala mu am. deux ans am âge mentalu dix ans. Hmm. yenn disposition yi. ñu naan jinne ko jàppaa yu ngeen xamul. waaw hmm. dafa nekk mbir moo xam ne fi mu nekk daan dafa ànd ak rab dafa yaayam dafa dafa waxtu sàngam wala lii wala lii maanaam dinañ jàpp ni daal ay ñun ay ñu ñuul lañu. Hmm. nit ñi am nañ koy. ñu koy expliquer. ñii naan war nañ leen sampal ñii naan war nañ leen yóbbu ñu dafa leen ay. loolu damay mbokk ak moom may mbokk ñooy wax sampa de. waaw bu may mbokk lébu ñooy samp dañ kaa sampal. waaw ñu jàpp ni daal <laughs> nit ñi waruñu xeeb benn benn <laughs> xeetu pàcc. waaye tubaab bi ñu ngi ciy gëstu. ba léegi xamaguñu. Mm-hmm. lan la euh, liñ ci gis mooy góor ñi lay gën a dal. que mm-hmm. jigéen ñi. Mm-hmm. un garçon. Euh, pour quatre filles benn ñaar su diggee ci kër. maanaam dans la fratrie su fa amee mën na law moo xam mm. ay doomu nijaay ay doomu tante mm. ay cousin ñu bokk ndey ak baay ci mën na xew ci biir kër mm. et du c'est pas héréditaire du lu ñuy donn waaw mën nga am doom ñetti doom ñeenti doom kenn ki jékki-jékki daal di mu am mu am mu am mu am mu il est autiste xam nga alors balaa ma lay bàyyi nga sore balaa ñuy dem si beneen si ñeneen ñi mooy euh, parents yi lay déglu ana yan yan signe moo leen war a ci seen doom ñu war a njort ne xëy na autisme mu ngi koy dal wala mu koy waaj a dal. waaw xale bi li ci njëkk a liñ ci war a njëkk a seetlu mooy. am na hmm. weer yoo xam ne su ko amee war na mën a di réagir. Hmm. nga jaar ci turam mu tontu. Hmm. nga gis ko muy interagir ak yow. war na mën a teel a set. war a mën a teel a wax. war a mën a teel a dox ko am na yoo xam ni. war na euh, di mën a ràññee di ko mën a gaañ ak lu ko mënul gaañ. kon am na yenn signe avant coureur yoo xam ne de façon précoce. mën nañ ci bàyyi xel su ma jëlee misaal man sama doom. ci njàlbeen bi dafa dafa tëx. da nga foog ne dafa tëx. boo koy odd la uyu. du uyu. Mm-hmm. donc il y avait une réaction décalée. ñu mm-hmm. yóbbu ko ci benn professeur. Mm-hmm. mu def ay tests grossiers. xool yóbbu yónni ñu ci keneen boo xam ni euh, keneen mu xoolal ñu mais non il est il est autiste. Mm-hmm. il n'est pas sourd mais il est autiste. Mm-hmm. Mm-hmm. lii mën a dimbali jur bi mooy mu teel mu teel ko seetlu. teel ci jóg. ndax dafa nekk xeetu wàññeent boo xam ni. trouble loo xam ni. Euh, du benn nit rek moo ko mën a faj. il faut une prise en charge intégrée. maanaam dina soxla orthophoniste. parce que xale bi il mën a communiquer. si waay waay mu bañ rek di di école yi war na mën a di communiquer. Hmm. ngay wax muy tontu. Hmm. mooy boo waxee mu tontu la mu am répartie mais da ngay wax mu wax li nga wax. mu baamtu mu baamtu ko day baamtu école yi. Hmm. nga ne ko nga ne ko am big bi mu ne la am big bi. waaw noo tudd mu ne la noo tudd. waay. il communique pas en fait. juste école benn. beneen bi il on va connaître le peuple. Mm. il va juste utiliser. comme il a des saillies comme il a des saillies aussi parfois. ah oui yoo xam ne day dépasser. Ah complètement il y a des génies qui sont des intelligences vives. parfois absolument. absolument. Mm-hmm. son mm-hmm. son discours peut se limiter à dire l'essentiel. Mm-hmm. c'est télégraphique pour un postier qui parle maanaam su soxlaa dara mhm. il va communiquer avec le minimum mhm. de de stock lexical est très pauvre mhm. waaw day wax rek li nga xam ne moo ko ciy génnee mais loolu aussi orthophoniste moo koy dimbali muy communiquer di échanger échange c'est important war na sax un psychomotricien il faut qu'il sache utiliser son corps comprendre son corps pouvoir utiliser son corps donc dina am soxla un psychomotricien dina am pédopsychiatre dina soxla euh, xeetu trouble boo xam ni pour prise en bi dafa laaj jot gu bari. Mm-hmm. mën-mën bu bari.